daleen ak jàmm rangu di xale bu jigéen bi doon jaay boppam ci réseaux sociaux yi te fayre nañ ko ca parquet ba ginnaaw biñ ko tegee loxo Fatimata Bari ñu gën ko xam ci turu rangu li ko yoon di toppee moo di dafa ubbi woon ab site pornographique tuddee ko OnlyFans ca boobule site nag doon na ca gañee xaalis bu bari ndax kat laata kenn di ca accéder il faut mu fay xaalis li leen nag moo waraloon ba enquêteur yu division de la cybercriminalité daal di koy daal koy teg loxo daal koy placé sous mandat de dépôt di defeere ca parquet ba mu nekk ab déferment boo xamante ni daanaka bettul kenn ndax kat way takku der yi dañ ko jàpp preuve à l'appui ginnaaw bi nga xamante ni infiltré nañ ko ginnaaw bi mu defee nag ay fan yu bëri ca police de la cybercriminalité rangu ak quatorze personnes yi nga xamante ni tegoon nañ leen loxo defeere nañ leen ñoom defkatu ñaawteef yi nag procureur bu tribunal bu Ndakaaru dina leen déglu fan yi jëm ci fàttali ñu ngi leen tegoon tegoon loxo le 27 mai bi ñu génn ca hôtel Ngor Timis ginnaaw bi nga xamante ni organisé woon nañ benn soirée buñ tuddee woon yendu parti ci jamono joo xamante ni bépp rassemblement moom dañ koy tere ci biir réew mi ngir xeex jàngoro coronavirus